générale des élections moom DGE yor yor bi nee na agrégé de droit yi homme politique yi avocat yi ak société civile bi danoo mel ne ñu kos almet rek teg ci kaw mu tàkk jëppét yéenekaay bi yeggee ñu kàddi yedd ak joyanti yi ñooña yëkkati jëme ci kaw directeur général des élections ngir lànk gi mu lànk jox Ousmane Sonko ay fiche de parrainage Sud Quotidien itam loola la joxoñ joxoñ it opposant yi ñuy kar ci seeni caravane di leen tere def seeni tournée politique gisee ci ni administration bi taxawaayam dese naa leer ñàkk tëddee njaaxanaay googa Sud Quotidien jur na coow Khadre Sanogo ci biir Vox Populi naan bu juree coow jaadu na ndax lii administration di def kenn mënu koo layal sociologue bi di analyste politique itam gis na ne administration bi tànk bi mu taxawee mooy fexe candidat wu Benno Bokk Yaakaar jiitu gaa yi sànni karawaas waaye loola Abdou Khadre Sanogo ma ngay artu ne mën naa bañ a jur la ñu yaakaar Vox Populi it gis ne opposition bi feu rouge la ñu ko tegal Amadou Ba ñu sampal ko feu vert candidat wu Benno Bokk Yaakaar bi yéene kaay bi nee na ma ngay daagu fu ko neex na ci diggante tournée politique économique ak wutum parrainage l'info gis ne Benno bokk yaakaar dawalul fair play ndax ma ngay kar ay candidat opposition bi booba jamono candidat wam di wëree réew mi nu ne kenn ñimewu ko ne sa bët bi suufa gi ci Walf Quotidien ne état règle du jeu yi ci boppam la salfaañe l'observateur it noona la gisee ne yemale amul ci langue politique bi ndax jamono ja Amadou di campagne di doxee nu mu ko neexee opposition yi moom daa mel ni xalaam Mamandir Bàjjo xalaa xalaa doo fi jaar la kilifa yi nekkeek ñoom réew mi quotidien nañu kenn ca ñoom Malick Gakou Louga lañu ko karee tournée nationale bi mu sumb di yoonu pas-pas réew mi quotidien nee na dañu kafaa bloqué booba jamono ci booba la yéene kaay Amath Soumaré vice président bu mouvement des entreprises du Sénégal ne faaw état wàññi dépense am train de vie de l'état nee na bu nu ko xoolaatut réew mi dina am jafe fay ay borom moom borom xam-xam bi ci wàllu intelligence économique nekkit économiste moo doonoon ganu grand oral ci réew mi TV samedi bi nu weesu réew mi quotidien mi delsi ci ay kàddoom nenu wàllu càmbar na tolluwaay réew mi ci wàllu politique ak ci wàllu économie gis ne élection présidentielle bi nu dëkmal Sénégal lu rëyan ko cay xaar boobale élection ci la maître Mame Adama Gueye di wax ci Vox Populi waxit ne du benn nit moo mën a doxal réew mi di Sénégal mbirum ñépp la war a doon waaye nee na Sénégal gi nag du nu fal président dañuy falab buur muy doxalee nu mu ko neexee jox ko ay sañ-sañ yu ëpp ba lu ko neex def te kenn du ci mën dara Mahammed Boun Abdallah Dionne booba jamono bàyyiwul dara ci laas ma ngay ci digganteem ak Macky Sall ngir Sénégal ak élection présidentielle bi ñu jëm boobale élection Juan Branco nee na gisul mu am te Ousmane Sonko bokk ca mbaa bu amee it yi moom yaakaarul ne danoon ca dugal seen loxo na mu waree moom avocat wu Ousmane Sonko bi itam ma ngay dëggal ne plan B moom bokkul ci xalaatu Pastef te itam bu kenn yaakaar mu am fa Macky Sall ak directeur de cabinet yu bari yi mu am l'observateur moom la xëy di càmbar ne wute na ak sengoor ak Abdou Diouf ñi nga xam ne ñaari directeur de cabinet la ñu am ci ñaar fukki at waaye Macky Sall fukki at ak benn yi mu defagum ci bopp réew mi yéenekaay bi nee na amagum na juróom ñetti directeur de cabinet la ko waral nag bokk na ci li yéenekaay bi tuddee instabilité dans le caractère de l'autorité maanaam Macky tey mu ñuul suba mu weex bokk na itam ci leneen li yéenekaay bi joxooñ ay hésitation maanaam du xam fu muy teg tànkam waaye it ay humeur am maanaam tey mun naa doon galaas suba mu raw safarab jahannama l'observateur it nee ñu tàngoon na jër ca sàkkal ba ñuy inauguré centre de santé ba ñaari balu fetel sax yéenekaay bi nee na tiré nañ ko ca kanam premier ministre ca xeex ba doxoon diggante garde du corps bu projet bu njiital gouvernement bi njiitu réew Sénégal ba woon Léopold Sédar Senghor alalam dañu bëgg a jaay ca bitim réew l'observateur it xëy na ci wax ne ñu ndaje mi leeral lépp ci altineb tey ji lay am Aliou Sow ministre bi ñu dénk wàllu caada dana dem ca camp tey jii ci suba ngir waxtaan ak commissaire priseur ba ca njëkk ya enquête ne ko buñ déggoowut ca yooyu la njëkk lépp luy am amu sengoor daanu ko jaay maître Baara Joxaane ci bi lépp yéenekaay joxooñ salfaaña gi ci patrimoine bu Senghor di alalam patrimoine booba nag yéenekaay bi nee na bokkul ci li ñu yaakaar ne danañu ko mën a delloo muy bien yan fi doon wax ne dañu koy delloo réew ya ko moom Sénégal moom musiba mbaab ba kumba mi ngi ci buntam Dakar Times moo ni gisee gannaaw ba mu càmbaree jihadisme ak ni muy laloo ci bët gànnaar jàpp soow bu Mali Espagne moom doomi Sénégal yaa ngay wéy di ko wutali ndax libération nee na ab gaal bu ba bawoo ca Kayaar am na tey fukki fan ak juróom-ñaar jëmoon Espagne kenn xamut fu mu ne réer la def bu Boubacar Seye ne ko réerut moom dong ndax juróom-ñetti fukki nit bokk ci ay na fukki fan ak juróom-ñaar moo teree nelaw ca caaroy xaar gu mitti laskan wa fa yeewoo nekkee ndax ñàkk xam fu seeni mbokk nekk kenn ci mbokki ñooña ne frèram daa ànd ak soxnaam ak ñaari doomam dugg ca woowa gaal juróom-ñetti fukki nit ya ca ne yéene kaay bi nee na ñu ca bari ay jigéen lanu ay jigéen ak i góor toll ci lu ëpp junneeg ñaar téeméer le quotidien nee na teer nañu ca waaxi il yi ci njeextalu ay bés bi journal lu ma jambal jaañ bi nañu it weneen gaal wundeelu ba réer ca amoo quatre ca géejawaay la mujjee teeree diggante Dakar Thiès ak Mbour libération ma nga réseau trafic carburant bu doy waar téeméer ak ñeen fukk ak juróom-benn litre carburant yéene kaay bi nee na teg nañu ci loxo teg nañu loxo itam ñu bari ci defkati ñaawteef yooya Lamine Camara moom defatina ndax réew mi quotidien nee na bii bu yéeme la dugal bii wu juróom fukk ak juróom-ñetti mètre bi Monaco di laaleeg Metz Ama Balde mi war a laaleeg Modou Lo da ko tegal bank ci seen face à face di janoo bi waroon dox seen diggante ñàkk teewam googa nag réew mi ko nee na bu maywul daanu ko ci suspendre juróom benn weer boole ci genn wàll relikaawam mën na ko ñàkk yéen am